والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu boobule ba yeneen yeneeni jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër muy xamal candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañ te saa ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee c s mi ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ginnaaw naataangoom Mouhamed Moustaba Diallo bi gagné woon concours international bu alquran Cheikh Diop bu daaral furqaan moom tam jël li nga xamante ne mooy deuxième place ci concours alquran ren bi. Euh, alhamdulilah euh, yëg nañ mbégte mu rëy moo xam ne daanaka. mën naa laa wax ne sama dund gi tey laa ko mës a yëg macha allah euh, ku mës a dem concours international bu fa bu fa fekkee koo xam ne mas naa dem daanaka ko koy ëpp expérience moo tax euh, boo gisee nigérien bi bi jël première moom dem na ay concours yu bare bari ci yoo xam ne ci réew réew yi euh, réew yi moo tax boo gisee ni muy jàngee xam ne am na am na am na expérience ci li muy li muy jàng. ak ay waajuram ñoom ñëpp bég nañu lool moom Cheikh Diop di ñaax rek ndongo daar yi ngir ñi gën a jàpp ci téere bu sell bi. xanaa euh, di leen soññ bu baax a baax a baax ñu jàpp ci téere bi bañ a bàyyi. waaw ndax xam te xam ni incha allahu su fekkee ne nekk nañ ci tamit bañ a bàyyi danañ danañ ci gis loo xam ni teraanga yi àddina ak àllaaxira téere bii mooy téere boo xam ne ku ci jàpp du la bàyyi mukk mukk mukk. Serigne Talla Diop ki nga xamante ne mooy secrétaire général bu Grand Prix Sénico mi ngi am kontante lool. sant yàlla euh, ci li nga xam ni teraanga bu rëy la boo xam ni Sénégal moo ko am tey ndax kii demoon di sunu jarbaat. Euh, bi mu demee demalul papaam demalul yaayam demalul sëriñam mais Sénégal yëpp la demaloon moo tax ñun ñëpp ñoo am mbégte ak kontaante ci lii mu ñu andil la ci gën a neex sëriñam bi ko jàngal muy sëñ Xaadim Njaay Rachid mi ngi nii taxaw bég lool kontaan lool ndeyam ak baayam ñu ngi ni taxaw bég lool kontaan lool. gàcce ngaalama doomu réew senegal ndax li day wane rek ñoo ngi sàmm li nga xamante ne mooy sunu héritage maam sëriñ daara yi nag ñoo ngi sàkku ci état bi pour mu jàppale ndongo daara yi. sadaqallaahu al-aziim. muy tawfeex